ñeneen ñëw ku ci mel ni Ousmane Sonko par exemple. waaw mais Ousmane mën na yor réew mi non non non tout sauf kooku. kooku alhamdulilahi rabil alamin sax ba bañ ko écarté. ku ko écarté nekk candidat ah moom bi yeggoolu xew xanaa xanaa da nga tukki woon. moom ak Mame Mbaye Niang écarté nañ ko xanaa mu def recours. te instant bi def na recours non waru koon def. parce que moo ne wóolul sama justice dootul wuy di justice naka lañ lay dooree ne dootoo kii mu def recours xam nga loolu mooy Sonko xamul fu muy taxaw xamul fu muy teg tànkam yow mënoo toog devant tous les sénégalais nga ne dootu mu wuy justice justice bi justice Macky la waaw yow nga tooñ ñu àtte la daan la yow nga ne da ngay recours looy xam ne ne recours bi da perte mënul am dëgg parce que dafa tooñ parce que moo xëy bonjour tuumaal Mame Mbaye Niang yow bu ma la tuumaaloon tey ma war a mën andi preuve mu andi preuve yoon tal sama kaw Ousmane Sonko c'est un citoyen doomu aadama la meeting am moo am au lieu mu wax ay membre Pastef dajale leen carte waajal leen defu ko. il a ses parce que bu génnee di victimiser wu di naan ko tooñ moo tooñ parce que meeting la ñu toog ñëpp di gis mu ne gars am na benn waaye bu tudd Mame Mbaye Niang xam ngeen ko ñu ne ko wii mu sénégale sénégalais la sàcc na seen vingt neuf milliards te preuve yëpp maa ngi ko yor sama téléphone moo ko wax gis nga vidéo yi journaliste nga léegi bañ ko ne ah yaa def loolu Mame Mbaye Niang ñëw ne ko sëñ bi li nga ma tuumaal de bu dee am na ma démissionné sama poste ministériel bu ko defee ma jébbal sama bopp yoon andil ma preuve yi waa ñu yóbbu ko porte plainte police dik dik lu mën mooy jébbal mbir mi tribunal tribunal da ngay dem taxaw may nañ ko opportunité fu mu àndee preuve yi doon wax am na ko boobu ba léegi gisuñu preuve bientôt deux mois dossier bi renvoi renvoi euh, jéem a victimiser wu feebar naa dóor nañ ma lu ne andi preuve yaa tooñ yoon àtte jox kee dëgg yaa xayti bu accusé wuloon loon Mame Mbaye Niang yëpp ko fekk. d'accord arrêté victimisation bi ah sonal nañu. <laughs> dëgg.